li ma doon ndeysaan asalaamaaleykum mbokki Ndoundour ñu ziar di bu baax eh final baa ngoog diggante Cheikh Diagne la ak ordinateur Cheikh ak ordinateur final palu lourd nekk noonu ndeysaan sama yaram daw parce que profil mu Cheikh mi nga sama doom mau moom fi andi woon yàlla jëlee ko ñu di ñaanal àjjana ndeysaan moom Cheikh Faye moom mu lee eh bi ma gisee yaayam tey sama yaram dafa daw billaay wallahi ma am lu ma lool mais nag yàlla la kenn mënu xëcc ak moom mais final baa ngi noonu Cheikh Ndiaye ordinateur Cheikh Ndiaye ordinateur waaw waaw wa Papo Ousmane Diagne Mbégane ziar an Émilie Niakh me Mbégane o ziar an coordinateur Cheikh Diagne Marie Luciane Diouf ziar an loolu loolu du dëgg ndeysaan boo amee say am di jàmm di bégee mais fàtte wuñ fan si club ba ndeysaan Cheikh oh. Cheikh TV